lay nuyu du nuyu waa Kër Massar di nuyu say mbokki mbër yi nga xam ne ñoo fi teew waaye tamit di nuyu Babacar mi nga xam si ni moo lay jàppale guddeeg bëccëg suba ngoon moom xadi bal la waaye tamit du nuyu Alaaji Daawda booy say nuyul mbokk yi lay seetaan. waa di jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngaalaama Serigne Khalil Mbacke caatu borom daaru maa ngi ñaan yàlla saxal ko fi bu baax a baax sama di sant suma yaay bu baax di ñaanal suma papa yàlla yërëm ko ak bépp jullit bu nekk si biir suuf di nuyu waa Kër Massar ron du ma tudd tur waa Kër Massar di ne seen euh, Kër masaar mooy Sénégal di ne gars yi nañ xam loolu gars yi dañuy xàññu Kër masaar mooy Sénégal waa di nuyu bu baax a baax suma coach yi ku si mel ni suma coach Baara nekk suma papa di nuyu suma su kiin ak Laat di su di nuyu bu baax maam Cheikh Sène jaaykatu yàpp taxaw na ma di nuyu sama géwal Lat euh, Mbool Ndiaye ak magam Lat Ndeela di nuyu suma xarit Zeking mon ami mon frère borom Italie Hamed Diol sama sama xarit suma lépp borom itali di nuyu Babacar borom KBG automobile doomu xadu Balla suma xarit suma lépp di nuyu Tafa Dia Tafa benn grand la bu dëkk Banqaas euh, yëg combat bi. nuyul sa adversaire Cheikh Super Jamono nuyu ko. loolu indi wuñu fii di nuyu ba euh, Tafa Dia. non di wax de ndaxte looloo ñu waa dinañ si ñëw incha di nuyu Tafa benn grand bi nga xam ne bànqaas la dëkk dégg ñu ne kenn jàppalewul booy Seye 2 mu génne xaalis bu bari jëlal ma ay kaar toggal ma añ yéeg yëpp Tafa Dia maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko sant di ko gërëm di ne kontaan naa si moom te su may nit kontaan nañ si moom. xaadim dawalkatu camion suuf maa ngi koy nuyu dafa ma woow ma ñëw mu may ma xaalis bari moom tamit di sant bu baax Moussa Oro jëkkëru Fadli borom taana sama waa koñ Toumani Diallo maire Dieynaba Ndiaye jàpp na si combat bi moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a a baax. di leen déglu pour répondre seen i questions. yan kàddu ngay yóbbante Cheikh Super Jamono moo ngi lay seetaan nuyu ko. maa ngi nuyu Cheikh Super Jamono bu dee loolu nga bëgg maa ngi koy nuyu waaw. dañoo gis yeen waa Kër Massar Kër Massar problème mu Kër masaar mooy lan yéen ñu dëkk Kër masaar amoo leen jàppale ci wàllum autorité amoo leen jàppale ci bonne volonté yi nga xam si ñoom ñoo dëkk Kër Massar problème bi lan la. waaw ah, problème bi mooy saa yi soxlaa jóg nañ jeunes yi ngay gis nii. booy yi ngay gis nii bu ñu ma waxoon bul def open press bi du ma ko def man ñoo ma gënal sama bopp jeunes yi ñoo ma gënal sama bopp te ñoom ñooy ñoom la autorité yi di woote ñu jóg topp seen ginaaw jeunes yi bu leen autorité woowoon ma ne leen bu leen dem duñ dem kon tey ñoom nañ xam ne carrément ñun ñun ñooy ñun ñun ay ambassadeur lañ fii Kër Massar suñ jógee ñu jóg kon suñ leen woowee nañ ñu wuyu comprendre nga lool nag du ma si développé parce que dama ciy wax benn message ku si mel ne suma papa nekk suma mag suma lépp Eumeu Sène nekk champion su ko neexoon mën na ko ci bañ a fekk mu conseillé ma ci ma ko ciy sant di si gërëm bu dee dama juumoon ci wax ji maa ngi ciy jéggalu di ne jërëjëfe borom Touba su ma sañoon nga bàyyi ma ma sant gërëm ku nekk dem ñibbi parce que guddi na. looy waaj ci bis ba looy waaj looy waaj sa digganteeg Cheikh Super Jamono ngay bis ngay bëree ci bis bu rëy ngay nuroo bëri ci bis bu rëy nooy waajee sa digganteeg sa adversaire. waaw sama adversaire maa ngi koy ñaanal jàmm ak wér li may waaj xam nga kañ la ko gars di xam bu arbitre daggee jéng ba génn suma diggante moom. nga li may waaj tant que arbitre bi daggul jéng yi tant que bi daggul jéng yi ba génn suñu diggante kenn mënu leen ko expliquer loolu ku leen ko expliquer juum. dama benn question bu ma Kër Massar yóbbante ne nañ sëy xam ne daan songale gars yi muy jug est ma la wax combat bi pare naa man yoruma benn bëre man bibliothèque laa yor man bibliothèque laa yor man foo kupp ma baatre diversité bi xamoon ci nañ ma xaar ci lépp la jour ji bépp mbër boo xam ne teew nga fi tey tey gis nga fi mbëru Fass mbaaw gis nga fi mbëru Kër Massar waa banlieue 11 waa banlieue 11 maa leen di bëggee bu baax ak waa 12 bee di sant bu baax bépp mbër bu fi teew di gërëm nag sama waa école booyi combat bi damay bañ a tudd benn turu mbër ci ci écurie bi mais booy dañ ma ñëw dañ ma woo ba ma ñëw ñu ne ma say combat bi état bii nga yor nii y'a deux mois si ginnaaw état bii nga yor nii soxlawuñ ko si combat bi yow suñu papa nga nekkoo suñu suñu tëdd fil encadré ma si combat bi entraîné ma ci ñoom booy ñoo ma entraîné si combat bi wallahi nu ma mel si combat bi ñoom la ñoom def nañ li leen war yëpp maa leen di gërëm bu baax ci turu sama papa King ak sama papa Baara ak sama papa Laat sama booy écurie yi gërëm naa leen encore une fois barke sëñ Bamba gërëm naa leen bu baax baax a baax ñi si am combat yàlla na leen yàlla may ndam ñi si amul combat buñ am yàlla na leen yàlla may combat te may leen si ndam. nga xamante waa di gërëm 100 pour cent Kër Massar bi yëpp di ko di leen di teg nuyoo bi ci loxo Diaz président Diaz mënuma lim ñëpp Papa Yada man ak ñoom man moom dañoo dund lu nekk si àddina Papa Yada man ak moom dañoo jiko damay dégganteeg yaayam di nuyu Kanji production borom borom euh, TDR di ko ne Papa Yade dafa am doom bu ndaw bàyyi ko fi am waajur bàyyi ko fi nekkoon espoir ci làmb maa ngi lay ñaan ngir jëmi Serigne tubaat ci lu baax rek ngay dox kanji bu combat bi jeexee man maay man maay maay ñëw si yow ñu taal si oto dem seeti yaayi Papa Yade ak doomam bi ñu defal ko ay teraanga dine mbër yi ak promoteur yeeg wax ak lu làmb bu loolu kanji bu ko déggee dina ko def buñ di fàtte suñu way dawlu yi nga xam ne dañoo nekkoon ak ñun si làmb ji di bëre <laughs> buñ leen di fàtte comprendre nga di gërëm presse bi seen déplacement seen déplacement maa leen si gërëm ak seen liggéey bu rafet encore une fois ak seen dignité. lan la ñuy xaar jour si ci mobilisation côté mobilisation. côté mobilisation bi pare nañ waa Xusna booy ndaw yi yor lépp organisation bi tey lépp ñoom la waa tool pare nañ waa pàkk ba pare nañ waa marché pare nañ firi pare nañ mbëbës pare nañ waa unité 3 bii ma nekk nii pare nañ Kër Massar rond pare nañ comprendre nga di di gërëm di gërëm assan nga xam ne dafa defar ay t-shirt gratuite maa ngi koy nuyu di ko sant bu baax di ko gërëm di gërëm waa Kër Massar yëpp.